bu ñu génnee tey jii di attaquer Macky Sall dafay firnde que euh, ànduñu ak décision bu Macky Sall jël dàq leen ñoo loolu ñooñu ànduñu ci jégu nañ ci APR. mais ànduñu aussi ci taxawaayu Macky Sall ci gannaaw Amadou Ba dañu tuumaale Macky Sall euh, jàppalewul dëgg-dëgg Amadou Ba ñoom luñ ci seen gis-gis defet Amadou Ba Macky Sall moo ko organisé ndax bañ jàppale Amadou Ba comme ni mu ko waroon euh, jàppale. Euh, soo xoolee Amadou Ba daf ko limogé sax euh, fekk élection bi lu ci desoon bariwul lool lool loolu pour ñoom seen gis-gis mooy que lu leen daax fekk Macky jàppalewul amadu Ba euh, Macky Sall dafa bokk ci défaite amadu Ba duglu ko sabab défaite Amadou Ba Macky Sall ci bokk na ci e ñoom defe naa tey ji su dee jël nañu seen responsabilité bay attaque Macky lu muy firnde mooy que jóge nañu jóge nañu ci APR amatuñu benn euh, confiance ci ci Macky Sall ak ci APR léegi nag euh, est-ce que Amadou Ba dina leen topp bon defe naa bu ñu xoolee APR en tout cas ni mu tëddee yaakaar Amadou Ba mu ngi ci loxo ñooñu.